amee internet bu RMB TV ñu ngi amaat contentement ñëw dalal leen fi ci Daru Salam ñëw fekk ci suñu grand yi bëgg ñëw waxtaan ak ñom ci match bu wara mëna am suba ci Sénégal ak Angleterre señ bi nuyu nañ la. mu lay ñaan nga présenté wu. ah man la Tafa Ndiaye dëkk Daaru Salam Lay ñay nuyu nañ la. Ah. ñi am contentement contentement bu baax ginaaw bi ngeen ñu dalalé fi ci Daru Salam di leen laacc lan ngeen xalaat ci match bi yu wara am suba inshallah ju suba Angleterre Angleterre loolu soxna si amul werante Angleterre dañ koy rey te premier daal lay tàqali ko moom waaw premier daal lay tàqali ko moom de. yow daal wóolu ngeen seen bopp. non kooku biti la fanaan Sénégal fu mu toll nii rek ñun ay xool ñu sa Angleterre. pourtant nee nañ Angleterre mooy favori ci match bi. waaw waaw waaw loolu am na quoi ñoom seen seen seen gis-gis la. waaw kii si sur le la ñuy wax la wax mais Sénégal jamono bi moo gën a taxaw Angleterre jeu sa duñ benn. Eh, te Alioune Seye lu ko ñaan moom mooy équipe mu indi bu passé nii ñu ngi ko indiwaat Gana moom ñëwul nañ dugal foofu Nampalys waaw bu ñu teg ba foo xale moo koy def ah, ñu loolu lañ bëgg. ban taxawaay nga jàpp ne équipe bi war nañ ko mën a taxawee pour match suba bi allah. comme bi keroog rek dina la xaar prix bi ñu dal seen kaw dina la xaar waaw ah, parce que ma doo xaar boo boo boo xaaree dajaa da jàpp da nga ko ragal ci loolu la profité pour gagner la dina la xaar dañuy dañuy ñu commencé rek kaw. waaw ñun fa Angleterre Brésil la ñu ñëwal ñoom ñëpp benn lañ ci ñun waaw. Laye gis nañ ne wóolu nga sa bopp trop. non ma doon wóolu sama bopp ku mel benn équipe bu ndaw ngeen di dajeel. non non non ci mag la mais ci man équipe bu ndaw la waaw te Angleterre ñun Sénégal échange yi am yëpp day compété fi ñu nekk te ñu ay te ñu ay cuune. boo xam ne ñun ñëpp suñu suñu xel dem ci moom mooy Sadio Mané mais boo fi nekk leen ne sans Sadio ñun dañoo war a dem final. loolu booy wane ko sans saa ñu dañu leen bu ñëwoon day gën a neex nag quoi mais boo tamit da xam ne sans maanaam ou pas Sénégal day day indi fii coupe bi waaw affaire ñoo ko fi ñoo a def waaw. gis nañ ne am na yenn joueurs yi nga xam ne dinañ manqué suba comme ku ci mel ni Gana Gueye. Hmm. lan nga gisee absence boobu bi war a am noonu. waaw Gana absence am dina xaw a am tuuti lu mu def mais mais pour man nekkul loo xam lu lu grave la parce que Gana Gueye place am fa nekkul boo fa tegee Nampalys day mel ni Gana moom foofu. parce que Napoli ñoo joué boo xam ne ni pour pour nga remplacer dafa jafe gaa yi génne ancien xam naa looloo gars di di ko cër boobu la ñu ko jox ba léegi di ko di ko dépaaloo mais man Napoli jamono bii bu bu ñëwee day mel ni man dañuy fàttali sax ñun gànn jógee na fi waaw. parce que Napoli 90 minutes même rythme lay football te loolu te loolu di ko soxla ci football Angleterre booy fóoloon ñoom doo bàyyi ang ang su fóoloon Angleterre dafa métti Angleterre booy fóoloon doo doo bàyyi chaque instant da nga ca war a nekk loolu mooy ñoom moo booy woo ñu may dara suba. dégg nañ ñu ne Angleterre yi joueurs yi gaaw lañ par rapport ak joueurs sénégalais yi nga xalaat ci loolu. non mooy li ma wax rek ñun ñoom loolu seen la mais Sénégal jamono bii joueur bi nga équipe bi nga taxaw suñu équipe man gisuma ko ma foofu laa ci sama gis gi quoi waaw du question Sénégal la wax dara mais indi keroog euh, mu tudd Équateur keroog booy bu ñu ko indee équipe bu ñu ko indi nga am problème waaw ñu am na ñu mun dugal suñu militaire yi ñuy xeex défense moom kenn wax ay waxam suñu góor day présent mais mais loolu mooy équipe. ñun lépp ñu pare yëpp yëpp lépp lépp lépp dañ ko am ñun lépp dañ ko am lépp le des dañ ko dañ ko bàyyi yàlla ñaan yàlla yàlla mel ni dem loolu moom mooy gën a am solo ci kii bi mais Angleterre deux ans pare moom suba la ñuy xaar ma si ba départ ko rek Angleterre deux ans pare waaw ba tey ñu ngi amaat beneen grand ci côté bi grand bi nuyu nañ la ah. di la ñaan nga présenté wu man maay Salif Goudiaby nekkoon fii président Dekondo waaw ma jote am euh, suspension quoi waaw dëkk fii euh, koñu dëkkandoo quartier Darou Salaam euh, précisément biir ëndëpënd waaw parce que fii yaa ngi biir ëndëpënd quoi. Hmm. Euh, gis nañ Sénégalais yi euh, match yi balaa ñuy gën a nekk ci match bi. Hmm. faaw ñu mën a leen. Hmm. dañuy xaw ma nan laa ko mën a waxee dañuy naagu wala tayal wala lan lañ lan lañ mën a wax daal. non du naagu sax parce que dafa am équipe bi nga xam ne ñoom seen système de jeu lépp pour mu dox il faut des fois des fois réaction la quoi. comprends nga ñoom réaction lañ gën a mun nekk si action bi peut-être que loolu la bon pour le cas Sénégal jàpp ma sax loolu la sax parce que xam nga des fois coach bi des fois day ñëw des fois mais bul xam kenn ma andi loolu mooy des fois des fois di nga ñëw teg système des fois nga gis def ñëw gis ko sans ñëw contre carré la affaire yi changé comprends comme yow boobu boobu yow réaction rek nga mën a def loolu loolu moo waral loolu quoi. Hmm.

Euh, Équateur Sénégal classement boobu baax na pour ñu tegaat ko pour suba incha allah. waaw baax na baax na trop baax na trop pour ñu tegaat ko baax na peut-être que dina am benn absence mooy absence su Gana Gueye te te te am na ñu koy compenser xam nga man dama yàgg na Sénégal équipe bi nga xam ne la euh, nekkatul Sénégal bu njëkk ba Sénégal équipe la vingt-six vingt-six zone la ku nekk ku ku absenté sa sa sa sa mën a remplacer loolu mooy équipe. waaw te yaakaar naa Aliou Cissé liggéey na li tax li li tax ñu li li tax bu kenn ne bu kenn nawlee jëlem ko ko remplacer. waaw comme ni nga tuddee Aliou Cissé dañoo gis ne Aliou Cissé. Hmm. comme ni mu génnee wax nee na moom classement. Hmm. moom moo ko moom. Hmm. nañ ci noppi. Euh, lépp li nga wax xam ne joueur yi war nañ ko mën a def classement bi moom moo ko lan nga xalaat ci loolu. non man man je suis parfaitement en phase avec lui dama d'accord moom parce que si nga wàllum classement. boo gisee gars yi choisir entraîneur c'est parce que dañu bugg xam ne ñëpp ñëpp mënuñu def classement moo ñu choisir entraîneur jox ko cër boobu comme waaye nit ñi doon jiital ba pare di bëgg a joxe décision si si kawam Aliou Cissé moom mooy moom moom moom moom moo la si terrain bi football na euh, football na si club football na au niveau de l'équipe nationale dafay jaloore comprendre kon war na xam lu nekk si terrain bi bu demee ba benn instant. gis na situation bi ak système de gestion bi teg saa évolué yoon la moom mooy xool lu ko neex ma xam ne di doxul xaama changé ko comprends nga donc nag man am naa yaakaar ne des fois nag ñun dina def lu ci nit ñi ñu wax des fois dina si bàyyi xel comprends nga parce que tamit lu gars naan xel doyul xel doyul comprends nga xel doyul peut-être que bu ñu waxee wax ba dina si bàyyi xel mais moom classement moo ko moom boppam mooy xool ko arrange bu dul ko arrangé mu ne ko doo dugg mais japonais critique critiques ko def deux premiers matchs bi mo indi ndam li am parce que bo xolé deux premiers matchs yi def. Mhm. classement bi ku nek ko don critiquer mhm. bi critiquer gis nañ après changement amna ci classement bi ci troisième match bi contre l'équateur waaw mom xam nga mom moy mooy yaa ngi ñu euh, critique d'abord ba critique d'abord c'est si équipe critique d'abord ba parce que même même comme man euh, je l'ai souvent dit bo gisee tay équipe nationale mag yëpp tey équipe nationale mag yep yu jall jëlé coupe jëlé coupe parce que critique yi motax critique yi motax critique da defal équipe man gis na sax critique yee tax yé pas sax xawoon na tax tamit bo mu jëlaat ay mu jëla yeneen disposition yu bees parce que tamit yoon la bu dee dëkk suñu mbir tamit da la war a critiquer comprendre nga parce que suñu mbir ñoo ko moom xam nga ay monsieur moom la Sénégalais ñoo ñoko mom Sénégalais yoon la ñu gis ñu xam doxul ñu critiquer moom tamit mu wara baye xel ni ah Sénégalais lii la ñu wax xaar mu xool si positif parce que lii nii nii lépp luñ ci rek am na lu si baax am na baaxul comme daal mu xool baax mu jël ko xam nga loolu moo tax tey man am naa am naa yaakaar sax si loolu loolu si vita bu njëkk tey loolu am na lu si joué quoi ni ko waxee nii. fan yii gis nañ ne coow li bëri na torop ci côté sëriñ si. Hmm. ku ci mel ni Karamba. Hmm. ñu waxee ñu ne joxe na score. Hmm. jàppoon ne loolu amul lu muy joué ci ci ci mentalité sénégalais yi wala mentalité joueurs yi. Ya, xam nga mom pilih efek la nga efek, Sénégal nga fekk man man man mi loxoy sax man dama contre parce que man affaire sëriñ mom wax dëgg mom du du du du du ma jox cër quoi mais xam dem des fois tamit euh, société dina évoluer ba ben ba ben moment si dundam am na am na li nga xam tamit il faut nga nangu il faut gars yi nangu leen ko comprendre nga parce que même même même moo boo gëmulee sax des fois sax di si bàyyi xel ndax des fois ñu wax des fois di nga xam dina dina xaw a tombé quoi. ba peut-être que ñun ñun man mun naa comprendre ñun ñun ñun population bu ñu jeunes ay supporters mën nañ gëm loolu nga ku nekk parce que dama football tamit Sénégalais bu nekk di ko jëm jëndee sa sarax sarax peut-être que sa di nga gis ñoom dañ jàpp ñoom sarax moo gën moo tax ñu koy fësal si kaw comprendre nga mais euh, te man man li ma gëm mooy joueur bu football wala def loolu bopp ci lu boppam quoi joueur bu football ñun supporters sax su comprendre parce que suñu Sénégal loolu suñu aaralu fii nii boo xoolee ba ba si nootaani sax. danaa ne équipe bi lépp si moom lépp social sax moom moo gën am sax pour gagner la comme fi lañ ko fekk moom moom mënu fi génn mais joueurs yi football ñoom nañu xam ne bal bi moo leen boole terrain bi du sëriñ bi parce que tamit comme ni ko gars yi di waxee rek xam nga gars yi des fois gars yi naan naan non bu doon sëriñ la comme euro comme européen comme jël nañu ay coupe du monde comme comme comme Afrique di jël coupe du monde ma bëri maanaam maanaam dafa man dafa may poser question ñu la mooy leen européen tamit. moom tamit mu dul sëriñtu waaw comprendre parce que sëriñ tamit mooy la tamit xam nga man daal jàpp naa ne bon loolu ak football ànd mais daal bu mu dem si ci bopp joueur yi quoi loolu laa jàpp man. kon bu ma comprendre ne da war a da da nga ne sëriñ si nañoo mën a noppi ci sport bi. si non xam nga tamit boo loolu mënoo ko quoi xam tamit bon ku nekk tamit boo xam nga nit nit nit mënoo ko wax euh, parce que tamit man jàpp naa ne ñoom man ma jàpp ne ñoom su loolu la yemee seen teranga dañuy daw seen publicité pour suñu ñemee client ko bu dee tamit bon pour loolu tamit mën nañ ko wax tamit xam nga rek mais man jàpp naa ne tamit li ñu wax tamit mën na mën na bañ a refléter tamit que jël fi tamit ay nit wax ni taxaw na fi ne Sénégal di jël di jël coupe d'Afrique Sénégal jël daal dafa dafa jaxasoo quoi mais daal ku nekk daal yaa xool loo arrangé def ko mais kenn mënul ne nit ki bu def li parce que tamit boo ko ne su bu dee su loolu lay dundee su loolu lay amee dépense am tamit ah mënoo ko ne bu ko def de Mm. ba tey ñu ngi ci RMB TV ñu delluwaat ci ab Ablaye. Mm. même question laa lay posé loo xalaat ci Serigne si ak euh, sport bi. ah mais xamuñu xamuñu moom. boo xoolee euh, africain moom boo africain moo se moo sëriñ ñoo ànd ñun ñun ñoo dañoo gëm sëriñ parce ñu xam ne africain lañu sëriñ ko gëm mais tamit ñu bàyyi ñu bañ a jox cër yi cër trop trop trop sëriñ parce que bu baax day sonal suñu joueur ay lii ay lii mooy am nga toog di xaar bii te xam ne bii dina ñëw loolu erreur la yow miy football joueur bi sa ah, victoire yaa ko yóbbaale yow yaa gëm ne ma damay gagné sëñ ou pas damay dem après ñaani fekk la fa mais yow mais sëñ bi la doon ñaan te yow defoo li war a am ñeen dina lay gagné benn seen dugal bii benn seen jàpp tàngan dugal ko bii mën def seen affaire fii rek yàlla def mu antu mais victoire moom sunu booyee nekk fee ñoom ñoo koy indi dañu am gëm-gëm na ñoo war a gagné suba Angleterre mais pas sëriñ mooy gagné dañ teg fa sëy na lu ñu liggéey yoon la ñu liggéey fa ay Sénégal lañu mais bu ñu jël suñu xel yëpp def ko sëriñ di xaar école sëriñ bi waaw sa yaakaar na fi gis ay sëriñ ñu yóbbu vaar du benn du ñaar bu dafit bi dañ yóbbu vaar yóbbu yóbbu vaar ba bay bëgg a dee affaire bi moom nañ ci xam ne lépp ñu teloo ci loxo yàlla xam ne moom saa fi am lu am fi yàlla la teloo tam ñu góogóorlu même bu ñu gagné tam ñu gagné ñu ak jom waaw ak jom dafa am solo ñu bu ñu gagné ñu gagné la ak jom mais gagné la ak gagné boo xam ne genre humilié ñu bugguñu ko nan rey seen bopp te loolu ñu am parce que ay ay gëré lañu am booy ay jàmbaar lañu suba Angleterre dina daj lu métti suba waaw maa la ko loolu. waaw ba tey ñu ngi ci RMB TV mais laay <coughs> euh, est-ce yaakaaroon nga ne ñun dinañ dem huitième de finale ci coupe du monde bi parce que ñu bëri dañ doon naan Sénégal ak premier match bi ni ñu débuté baaxul baaxul baaxul ba ñu gagné ci match bi. non parce que ñu wax loolu xamuñu football football nga équipe mag boo dóoree premier premier match am da nga ko moom day xool faay mu amoon dootu ko dem loolu moo tax Sénégal la parce que li ma la wax nii mu koy final mooy premier dañoo dóor bii bii bii bii jël bi yoo xam ne ay bii fin temps loolu xam nga lu heure weesul loolu am deux xam ne ñun caaxaan jeex na ñu dóor deux heures deux benn match ñu ñoo dóor deux la ñoom mais man ma sa huitième de finale mais ka laa war na de finale laay xool mais du kon jàpp nga ne Sénégal mën na jël coupe du monde bi. ñun bu amoon coupe bu raw coupe du monde dañ koy jël loolu loolu sama gëm-gëm la man man man man man Tapha Ndiaye loolu sama gëm-gëm la waaw man senegal mooy jël leneen dul lu du monde ku ko ku xeeb Sénégal nag yaa xam ay ay ay Brésil ay Argentine ñuy wax ay ay góor lañu bi ñaari onze ñaari onze yi amul jigéen bu ci rax ñaari onze yëpp ay góor lañu te ñoom suñu club bi nekk ñoom dañuy doxal ñoom tam feneen dañuy doxal bu ñu tee na ñoom am na complexe Sénégal jaar équipe bi amul bu njëkk ba di foo di complexe loolu amatul léegi ñun ku ñu da nga am problème équipe bu Sénégal dayante am nga problème boo tëddee yow sa suba tey mën na nelaw mais jour la nga jàpp ne moo ñuy handicapé parce que dañoo gis ne suñu joueurs yi ñu génnee nekk ci yeneen club yi dañuy jouer normal di dugal ay buts quant bu ñu ñëwee fii Sénégal dugal bi day doon problème mais loolu noonu loolu noonu daa am xam nga club chaque jour ñoom ñoo ko entraînement chaque jour dañuy mënti mu ëpp mais équipe nationale dafa def loo xam ne benn benn affaire la hymne national dañu toog defaat ay 3 mois sax doon football seen biir mais mais club chaque jour dañu nekk moo la boo fa nekk fu nga nekk day yomb mais teewuñ si équipe ñu amuñu problème boobu boo sa booy ñu fële ma pas nga am ñu amuñu problème day mel ñoom ñoo bokk club bi ñu footballé loolu noonu tamit entraîneur si joué ñoom dañoo am entraîneur boo xam ne gagné la entraîneur mel Aliou Cissé Sénégal mosu koo am buñ ko nangoo buñ ko nanguwul Sénégal mosu ko am des fois gars yi Aliou xamul dara moo xamul dara tamit moom mu ngi yóbbu ci kenn moo ñu jox ay trophée xam mosu ko am Sénégal dafa mos a xaar jël coupe d'Afrique yàlla jaar ko ci loxoom lañ dem ñoo ñoo ngi ni suba yàlla yàlla lu baax la def suba day day dugg day dugg ci histoire am ma yéen ndax mu jël coupe Papa Aliou dafa yàq xel ku seen Aliou Cissé ñu xam Sénégal nañ ko ñun xam ne Aliou Cissé Sénégal moo ko ñor moo tax man dama ko yéene yàlla may ko mu dem final jël coupe bi waaw ñu loolu ko dese fi mu toll nii. gis nañ yaa ngi fii demoo Qatar. nan nga fas yéenee supporter suñu gaynde yi suba incha allah. mun soo ñun fii fii fii fii lay fees boo ñu génne benn tel bopp bi ñun lay def ñun gars yi fees ba mu fees bu bi amee du jubilé que comme ñun mu yoroon Qatar léegi des Sénégal di ko di ko neexal ba mu neex ñun des Sénégal fii waaw mais bu ñu am bu ñu amul lu dem Qatar nag Qatar la dem dugg ci stade ba ñu ne comme ñu ngi lay ñëpp ñëpp ñoo dem il ñu dem ñuy des ñuy des nag ñun dañu war nañu ñoo ko des ñu tam ko yóbbeel dañu si bu mu jeex bu ñu yàlla mën jël inchallah ba de tourner tourné suñu grand bi nan la supporter di def ci jour bu ci terrain jouer. da xam nga bu bu dem bay wax ni supporter homme c'est parce que je effet bu muy def moi des fois des fois di di am problème c'est parce que supporter sama tey motivation la pour du football la dalay doole yow muy yow muy football ba pare wàññi faiblesse kii nga xam ne moo ñëw si moo tax supporter dafa am solo si équipe bu baax a baax a baax a baax waaw. comme niñ ko xamee ñun ñëpp gis nañ ne Sadio Mané demul. Mm-hmm. ñëpp jàppoon nañ ne sans Sadio Mané équipe bi du toll fi toll lan nga xalaat ci mentalité boobu sénégalais amul. wé wérante naa ko fii booy ba fii nii xam nga fii tamit fii chaque jour day fee dellu wérante naa ko fii ak booy man leen ñun weesu nañ période boobu noonu Sénégal weesu na période boobu noonu Sénégal bu doon bu jël coupe rek c' est parce que weesu war nañu weesu yeneen yeneen genre mentalité yi xam ne équipe lañ yor du Sadio Mané kese moo ne ci équipe bi un jour la moo ne si terrain bi ñu jël ñu jël si un jour yi si si un jour bi dina am yeneen jour yi ay remplaçant lañu même si bu dee dina tamit dañuy dem de remplaçant remplaçant yi mënoo def ñëpp ci terrain bi def pour mënoo mënoo jël 26 yëpp teg leen si terrain bi Sadio Mané c'est vrai pèse maîtresse la kenn waroon taw ko mo bokk na ci ñu gëna ko dafa dama ne bokk na ci ñu jëlee ko d'Afrique parce que gis nañu jàmbaateem xam nga et puis da doon osé xam nga de blesser na fi force football c'est important macha allah mais tamit am na yeneen joueurs nga ne tam ñu fi tamit ils sont prêts à mouiller le maillot de Moussa Yamane Dep pour Sénégal comme instant Sadio Mané pour man euh, euh warul am ben effet ci joueur bi wuyum ñu tamit da la manam da la war motivé motiver absence Sadio Mané tey dafa doon li xamé tay day dooleel Sénégal tay ça dit que ñoom il nous il veut jouer aussi pour lui pour prouver que Sadio Moussa Sadio Mané dañuy dem sans Sadio Mané tay dama japp ne tey motivation wax naa ko fii du du benn ñaar nee Sénégal sans Sadio Mané day dem waaw wante Sénégal changement man day dem parce que on a on a le potentiel humain qu'il waaw. <coughs> ba tey euh, lan nga xalaat ne Sadio kii euh, Aliou Cissé war na koo doxalee ci huitième de finale bi ñu dem ak euh, joueurs yi aussi lan nga leen di wax. waaw Aliou Cissé lu mu doxalee moom bon moo xam na ko Aliou man nee ah, fi monde bi entraîneur yi ñun am nañu entraîneur bi nga xam ne léegi. Euh, même bu dee am na nga ne dañ ko mais jàpp naa ne am na benn niveau mondial na si moom parce que ku dem ba nga Coupe d'Afrique comprends nga teg nga ay système selon l'équipe bi andi te Aliou Cissé jàpp naa ne xam na ni laa nga di àndi suba comprends nga te jàpp naa tamit am na te xam na nu mu koy contrecarrer soo ko suba. bu ñëwee bu mu tegg dara seen si si mu ko doon defee naka def comme ni ko doon defee rek tant que ñëw jàll seen kaw dem seen yoon waaw man loolu laa jàpp quoi jàpp naa ni Aliou Cissé maître maître si wàllum coaching euh, euh, am am am am am am am am am na am na connaissance boobu bu tax bu tax mu dóor Angleterre jàpp naa loolu quoi wax dëgg yàlla. ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la wax nga tàggatoo. waaw maa d'abord euh, maa leen di nuyu. Euh, di leen sant di leen gërëm maa ngi di leen sant di leen gërëm euh, di rafetlu seen teewaay bi parce que tamit euh, seen télé bi c'est pas la première fois tamit ñi ñu fi ñëw bokk nañu monsieur monsieur fi def benn tournoi ñëw teewal ñu ko xam nga tournoi bi rafet comprendre comme ñu leen sant dileen leen gërëm li ngeen li seen liggéey bi ñu nekk nii ngeen continuer ko ngeen continuer ko noonu. parce que tamit euh, day bokk ci li tax ñu ñi gën a xam mbaaw comprendre nga te yéen def yéen bokk ngeen si ñi nga xam ne yéen a ngi xamal ñu mbaaw parce que nga ñëw ba si quartier ñëw def genre reportage mel nii quartier bi mun a joxe seen ab yi seen comprendre parce que boo xoolee boo xool euh, kuréel bu commencé ba léegi ñu bëri ñu bëri xamuñu sax ndax est fii mu yëngu mais yéen a tax xam yéen tey ñëw ngeen tey de xam ne tey dans les recoins et recoins de Dakar am na ñoo xam ne ñu concentré du seeraan Sénégal quoi maa leen di félicité di leen di leen gërëm di ñaanal seen télé bi li li li leen si bëgg yéen xam yal na ko yàlla def yaa ngi jëf. grand bi kontaan nañ ci yow bu baax. laay la ñaan wax ñu sa dernier moom la. ah mais comme sa mu ko waxee rek sa waay wax na lépp quoi ñu moom dëgg fa na yàlla lii moom fierté la quoi fekk la ba fu nga nekk. pour pour au moins Sénégal yi xaw a bàyyi xel tout ça suñu ruq bi xam nga ruq la bu ñu demee ba ba ba nga mën dugg ci ruq yi moo ñun télé dañoo arrangé ba télé ñoo ñoo génne yenn mbuur yi xam ko waaw yéen télé mag yi du ñoo fi waaw moo la ñu ñu ñun ñun ñun da dañeen namoo yeneen dañ ko dañ ko ndamoo parce ñoom ñoo tax ñu bëri duñu xam duñu gis mais nag yaa xam ne ngeen bëgg na ko yàlla may yal na yàlla defal loolu lu kawe seen njot ngeen ne ba mel ba mel ay TFM ak ah ay ay ay comme télé bugaan bi ñoom ngeen ne ba mel noonu te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def jàmmaa ngeen yàlla na yàlla defal jàmm waaw. waaw ñuy amoon contentement bu baax ci dalal bi ñu dalal tey ñu ngi fii Kër Mbaye Fall euh, Darou Salaam di gërëm waa Darou Salaam di leen kontaanee di leen wax ami internet waaw comme niñ ko waxee woon rek ci commencement bi dañoo ñëwoon génn xam nga waxtaan ak euh, xalaatu soxla nañ xalaatuñu ñi nii ñëw ñu diisoo ak ñoom lu ñu xam ci match suba huitième de finale bi. di am contentement bu baax di len nan euh, ba benen yoon inshallah merci beaucoup. waaw batay tey internet bu RMB TV ñuy ngi waat fii ci Kër Mbaye Fall ginaaw bu joggé ci wa Daaru Salam ñuy ngi waat fi ni ci Kër Mbaye Fall rue 10 di dalal suñu tonton bi di nga tonton nuy nañ la. ah ñu naan maa leen di fay. waaw batay tey joggé ci wa Daaru Salam rue 10 ñu ngi fii waat ci Kër Mbaye Fall amaat contentement di dalal suñu tonton bi tonton nuy nañ la. Eh, fay naa leen fay naa leen. Euh, di la ñaan nga présenté wu. Eh, man maay tudd Mamadou Sissoko eh, ancien footballeur de l'association sportive des forces armées ASPA. maay dëkk euh, fii Kër Mbaye Fall rue du Dar Salam bokk si dirigeant ASC bi bu bees bu coow dëkkandoo ah maay seen directeur technique. kon mu mel ni benn euh, am nañ un grand sportif un coach mën nañoo ne coach ñu ngi lay laaj Sénégal qualification 8e de finale bi loo ci xalaat. Eh, xanaa kontaan bu baax si équipe nationale mooy xam ne mooy suñu lion yi eh, gëm nañ ko ñëw nañ ba quart de finale te ñi yàlla suñu borom mooy suba dimanche mu màññu ndam si kaw Angleterre. je crois à mon équipe nationale ah di leen ne bon sens waa yàlla suñu borom daay màññu ndam ah si kaw Angleterre. waa coach ñu lay laaj ba tey yan nga xalaat ci classement suba nan la war a mën a ah classement suba comme d'habitude rek comme il y a de nouveaux têtes mais le majesté défense bi non, là le Gana Gueye carton rouge je sens le jeune 6 là moo ko remplacé bu ñaarel bi amee bi Napoli dé ñuat wa Napoli dé ñaar à à droite calé à gauche Les milieu terrain le jeune est là nous, mu comment il s'appelle le gauche là nous, hmm. le gauche qui est en Angleterre moi moi Moi, départ comme kéro rek le sar et. Famara Diédhiou ak euh, Boulaye waaw mu mel ni kon gis nañ ni ñaari absence dina am ci grand joueur yi mën nañoo ne euh, muy Sadio maane ak euh, Kouyaté ak Gana Gueye waa gisoo ne loolu dinañu indi tuuti gàllankoor. non non non non loolu amul si football mënu indi gàllankoor waa on ne répète là lu mu mun lu mu a indi peut-être expérience la mais moi je crois aux jeunes si football bi. ah football engagement fighting concentration quatre-vingt-dix minutes comme le capitaine capitaine capitaine bi muy def ak euh, Diallo si axe bi concentration quatre-vingt-dix nu ni ñuy demee noonu la ñu mun a ñëwaat pour mun a euh, euh, contenir anglais parce que anglais ils sont ils sont rapides véloces mais malgré ça nous on croit à notre joueur à notre vivacité surtout Ismaïla Sarr ah dinañ am ndam si yàlla suñu borom maay ñu ndam si kaw Angleterre. di te bobu bobu nga tuddu sank bobu lay ñew gis nañ ne sénégalais yi ben moment donné dañuy sentir ne dañuy naagu xaw nu mu fa démé non té ñu ngi ak ben équipe bu mag bo xamné ne rapidité bi ñu ngi koy wax lan nga xalaat né lolu ba xam duñu indi le galancor ci match bi suba. non pourtant pas xam nga football football da dem moment yoo xamné ya y' a un temps fort jour mënu accélérer football 90 minutes ya minutes moment yo xamné da ngay am tout recul pour mëna xol adversaire adversaire au bon moment moment bobu lay lay fekk si. yee léegi nag jamono boobu moom il faut nga ut am taxaw bu baax sinon moom da ngay boo naagu rek nga encaissé mooy concentration bi waaw concentration bi ak solidarité bi waaw loolu moo mën a si génne loolu mooy fubal. ci encaissé boobu nga wax ci laay ñëw gis nañ ne Sénégal ñu bari ñu ngi naan bii bi ñu encaissé keroog doonul woon yoon ñu encaissé ko loo ci xalaat. waaw xam nga day yenn saa football moom day am ay failles individuelles yenn saa bug bugg def lu baax failles individuelles am yenn saa mooy indi bi comme bi Équateur bi. dañuy jóg mbokk seen kaw waa ji nekk en deuxième amul ku ko marqué mu dugal ko loolu rek la te mënu ñàkk mënu ñàkk si football waaw encaissé moom ah boo dugalee ñaar nga encaissé benn l'essentiel ndam rek lañ soxla ndam rek lañ soxla waaw. waaw coach ñu ngi lay jaajëfal de la remercier ci sa teewaay de la wax sa dernier mot. waaw maa leen di remercier bu baax waa Sen TV a ah, ah eh, RMD. ah di leen féliciter encore di leen encourager si kanam si kanam si kanam yàlla Sénégal sunu suba yàlla suñu morom buy maye ndam muy mu may ñu ndam mu leer nga si kaw Angleterre merci beaucoup. waa kay jaajëfal ginnaaw bu ñu jogee ci dëkkandoo ñëw nañ daje coach bu mag boobu waa euh, nuñ koy defee saa su nekk dinañ delluwaat euh, gën a diisoo ak ndaw yi ñu wax ñu lan lañ xalaat ci match bi war a am suba muy huitième de finale bi. ba tey bu ñu jógee ci coach ñu ngi dalal suñu frère frère nuyu naa la. waaw sant alhamdulilah maa ngi leen di fay di leen nag si déplacement bi ngeen def quoi aussi tamit am ñu seen fay. tey ñuy am contentement dalal la fii ci RMB di la laaj match bi suba la ci xalaat. waaw bon comme tous les sénégalais rek affaire yi moom xam nga rek daanaka man li ma xalaat presque boo xoolee ñëpp loolu lañ xalaat quoi. comme keroog li ñu joué li ñu joué woon rek daanaka loolu loolu la ñuy ñëwaat pour loolu la ñuy joué waat rek bu ñu bëggee am ndam quoi puisque Gana aussi xam nga dinañu manqué mais. yaakaar naa ne alin Cissé dina def le tout ba nga xam ne xam nga dina dugal ko xam sini si mom ñëpp mom la mom moom ñëpp moom daanaka si digg bi loolu la ñuy quoi muy Nampalys euh, Papa gay ak ak ak ak Pathé Ciss te jàpp naa ne aussi tamit ñëpp ñëpp ñëpp tamit loolu la ñuy xalaat quoi pour Aliou Cissé def loolu noonu. kon jàpp nga ne classement B ak Équateur alin Cissé loolu la war indi indiwaat suba. wa puisque danaka danaka danaka ben changement rek mom mo ci am. mooy mooy kii rek euh, kii ki ñu forfait kii Idrissa Gana Gueye moom waaw moom moo nga xam si moom moo forfait daanaka moom moo si dul bokk mais boo xoolee le res kii rek lay indiwaat Nampalys lay indiwaat mu dugg foofu noonu rek après affaire yi du changé de loolu bu ñu ko indee jàpp naa ni xam nga rek ñu dal seen kaw dañuy gagné kii bi li ñu li ñu li ñu suñu favori li nga xam ne si moom mooy doon suñu atu quoi mooy presque boo dee xool ñun ñun ñoom ñooy favori quoi boo dee xool ñoom dañu xeeb maanaam xeebel bu ñu xeebel nag ñun loolu mooy doon suñu atu après ñun la ñuy jaar rek pour leen gagné waa ci xeebel boobu ngay wax ci laay ñëw gis nañ ne ñu bëri dañoo jël favori jox ko Angleterre lan nga mën a xalaat euh, ak loo ñuy wax ci loolu. waaw puisque boo dee xool comme li nit ñi di wax rek daanaka ñun dañoo judd fekk football te boo dee xool Angleterre d'après lu ñu dégg ñoom ñoo créé football quoi daanaka kon favori bi ñoom lay doon en plus amul benn amul benn pays africain boo xam ni si nii xam nga mondial bi jox nañ la favori. donc di ko xam nga rek ñoom ñooy doon favori waaw mënul ñàkk quoi c'est c'est normal ñoom ñu doon ñoom ñoom ñu doon favori quoi. kon nan nga jàpp ne Aliou Cissé ak joueurs yi nu ñu war a mën a def ba gagné match bi mentalement. waaw suñu suñu mental rek comme comme comme keroog comme comme li ma wax sànq rek li ñu fubalee keroog moom la ñu fubalee rek affaire bu ñu xasee ba dugg si terrain rek maanaam favori amatul. xeex ak euh, favori amatul dañuy xeex 90 minutes fighting lool moo loolu dong mooy tax ñu gagné match bi quoi parce que ins bi fi affaire yi toll nii yaakaar naa ne amatul benn amatul ay kii mooy favori wala genre affaire yooyu noonu quoi favori daanaka dañ koy bind nii si kayit nii nii rek mais su match bi dawee yàpp naa ne ku def sa bopp favori rek xam nga yàlla yow lay may ndam ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la remercier am contentement di la dalal ci RMB merci waay ñu bokk merci